ولكن فيني صاروا نجاي ما كيف كنت ما كان خمسة كيلو من لا لا لا لا لا ألم ترى كيف فعل ربك كوكو واتنا دينا كلي خبارين أبراهة بورو يمن أبراهة بورو لهم بقاو جيمن ببري أيف أتمنى مجلس أجابي دي كرامبو دي بايكو كيلو يبقى جمكة mune ne moo ñaar jaar ñu ne ñi fu ñuy dem ñu ne ko Makka lañuy dem mu ne lu ñu fay wuti ñu ne ko am li nga fa nekk moom la ñuy xaj ah mu ne danaa toxal xaj ji de ci Yaman daal di daal di tabax lu benn kanisa Yaman boo xam ne am na ay di ko soxlawoo addina yëpp Yaman yëpp ku fenk ngay xëy ku jant fenk te fekk la nga xëy rek mu def sa loxo ñi di ko tawax di ko tawax di ko tawax ba matal ko lépp luy wurus yu jaar wurus yu roor sa war jënd wax ba rafetale na ko kanisa ba def ci ay mimbar yoo xam ne ci jalambaan la ko jële jalambaan bant la boo xam ne du màggat mukk jalambaan yoo xam ne jamono yi ñu njëkk ñoo ëpp juróom benn junne ci at ba léegi ñu nga reer moom du fu du màggat ndax bu ko def nag ba mu matee nag mu bu kenn demati màkk koy waje dina ñëw ci sama néeg bii moo rafet benn waaye dégg ko ci bani Kinaana sax Quraysh ñëw tojat ja di jàngoom ba fab ba mu ne waaw lii ñu ne ko bani Kinaana sax ñi moom néeg bi ngay wax ne dañ koy folli ñoo dox rek sa néeg bi ba def ko néeg boo xam ne ñëpp ay ñooy lañ war moom mi nga war ñooy wu jiitu tudd Mahmoud jëmal si Makka rek te booba ñoom xéefar yi ñoo nopp ñoo yëlif waa Makka Abraha ba mu ñëwee ba jub Makka mu ngi leen jëlee Abdul Mutalib maam yonent ñaar téeméeri jëlee moom Abdul Mutalib ba Abraha ñëwee ba jub Makka mu ñëw fekk ko ba mu ko séenee rek Abdul Mutalib ko am jëmm na ko am daraja ku ko gis rek xam ne kilifa la Abraha ne kii i ñëw daal gis naa ci moom mandargam yiw kilifa gu rëy la bu duut buur la bi di kilifa di ku tedd ci nitam du rafet ci man ma toog ci kaw toog loo ko ci suuf man mii ko ci kaw na mën ndëstanal ñaari ndëstan ma toog ci suuf bu ñëwee ma mën ko toog loo ci benn ndëstan ba noonu la def Abdou Moutalib ñëw mu tolloo ko ne ko loolu loolu moo aajo rek danaa ko faj mu ne ko gëlëm yi nga jëloon maa ko moom moom rek laa bëgg nga delloo ma samay gëlëm mu ne ko bu ma def ci fee rey màggal naa lool waaye bi nga waxee xeeb naa la man may toj fi Makka seen nii bi nga xam ne mooy seen teraanga di seen teraanga maam ma sosoo koo toj ñaanu looma ma bàyyi néeg boobu xara di ma daaji gëléem ah mu ne ko man gëléem yaa moom léegi ba sama yoon nekk ja am na borom man daal soo ma joxee sama gëléem ma dem sama yoon ah mu ne ko naa la jox gëléem yi ndax bu ma tojee makka den den jotaat ci gëléem yi yóbbul say gëléem waaye nag ma toj makka Abdul Mutalib ne ko moom jaag yaag makka ngoog yaag kaaba ngoog ba Abdul Mutalib dañoo nag jàpp ca jaaru yi kaaba ga ne yow sama borom nit ku nekk daal dana xaat bergeneem ñi ñi ngi jublu si sa bergene bi de noonu bu xoree si toog rek ñu ne picc yi de di naaw daal ba Makka fañ cee ba tey mosuñu fee naaw ma seet ma fi ñu picc yi mel ñu ne kenn mosu koo ñu ñu ngi toll ni kanir bët yàlla yebal leen rek ñu ne ma xareet Abraha picc mu nekk mi ngi ngëb xeeru tuuti nii fépp a bés naka xew bu jógee ca jaama lakk nañ ko fa ñetti junne ci yàlla ku ci nekk xamal nañ ko turu ka muy jam ci mu ci nekk nag ñëw rosal xeeroo mu daal ci naq solo benn mooy digg bopp bi wàcc ci mbuñ kam ñooyam ñoom ñëpp ñu ñibbe alax rek xare ba yëpp ne fi jeex foofu lu mooy Abraha buur bi moom yàlla dafa yéexee aw xeeram ba mu dellu dëkkam ndax mu nekk li ko waaye jële na ci tiitaange buur biir biir daw ko biir daw ko mu tojal ba tojal ay xalatam sogo ñibbi ñu ne njàmbar a ko jot njàmbar caat moomu la jëkk a feeñ ci àddina ba mu ñibbee daldi dee bàyyi fa njàmbar da nag njàmbar loola da nañu fa defoon ñëpp bañ ca tegee juróom fukki guddi la yonent juddu sallallahu alayhi wa sallam su yàlla delloo wutoon xare Abraha yonent bi mi ci njaam lay juddu de ndax yàlla dana nangu loolu ak ni mu xoofal àddina moom la yàllay nettali nag alam tara ndax gisuloo yow Muhammad kayfa faala naka def rabbuka borom sa bee saabil sii di ca borom ñëye ma jaa xanaa gisuloo ni ma def borom ñëye Abraha buuru Yaman alame ñambar defumoon kaydawum alame ñambar defumu kaydawum pexe seen fi tadlilin ci perte ndax yàlla pertalu seen pexe yañ pexe woon dañ ne woon dañuy toj makka moomu pexe day mappaay na waa arsala tam xéer ale ci ñoom tayram janaaro abba bii la yu di lëngeen de yàlla yebal ay picc yoo xam ne ay lëngeen yi lëngeen ñu naaw tiim leen parmi yim danañu sànni leen lii njaara fiñ ciy doj min si jiinin yu tukka ca bam bu tukka ca si jiinde fa a te kaa sun ñi dina fa maa ko mu di muñ góob ba lekk ko ñu mujj ñoom ñëpp mel ni tool boobu boobu ba bajj ko mu